jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay delloo siyaar man la Mouhamed Ndiaye di président adopté adopté mi ngi signifie association des opérateurs pour le développement économique di ay ndaw yu nekk Touba di yëngu ci acteur filière yu arachide bilan bi li ko waral tey séminaire la comme dañoo juddu di ndaw di yëngu ñu dem ba gis ni nat suñu bopp ni laaj na jamono fi mu toll tey ñu organiser wu doon mbooloo loolu moo waral jotaay bi ndax da ngaa a soppi waaw loolu moom am na ndax dox nañ si ay at fekk suñu bàyyi si filière bi ak suñu mag gis nañ ni somme yan yoroon di ko liggéeye ñun fi mu ne tey ñoo capital avancement yi des na. li monsieur le su préfet wax léegi rek golo di bay baabun dunde loolu doon bañ ñu gis ni kon ku tegu ci yoon it bis day ñoo ngi tegu ci yoon loolu moo waral organisation bi. Euh, ndax euh, liggéey bi. ci a xalaat ne a génn loolu nan waaw loolu ñu ngi si ndax barki démb rek développé nañ ab somb mag dem siyaare xalif général di Mouride jàppale Touba sa kanam ànd ak ñoom dem ci porte-parole bi Cheikh Bass loolu nag liggéey bi moo ko waral comme moom it mi ngi doon génn ndax invité nañ na fi salon agriculture pay dem nañ fi siin si ay partenaires partenaires yooyu itam woo nañ leen ñi ngi ñëw te lépp doole développement économique Sénégal moo ko waral. seen yëngu-yëngu ak nañ ko ak yeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci filière gerte gi leen amee wala li digganteeg Sonacos moom mooy ndey huile yi ndax moo fi jiitu comme ni ko président FENAB su waxee Modou Fall dafay yàgg euh, mooy suñu premier partenaire. ah ñu ngi doon liggéey moom nag di ko livré karo usine jël suñu alal di ko jox foofu nag des fois ñu jël ko joxe ko mu def ab temps lool maanaam norme yi ñu diggante woon ci engagement contrat yi duñ ko respecté waaye teewut ñu ngi jaajëfal DC bi Pape Dieng ndax mënoo dem bàyyi ko mu dem bàyyi na Sonacos mooy suñ ndey ci huile yi au contraire moom mënu amel bor donte mun ne mu bari tuuti xam naa sax am na fu ñu tóobi àggoon mais fi ne wàññeeku na ba daanaka amatul solo. liggéey boo gis dafa war a ànd ak euh, xam lu ñuy liggéey euh, gis nañ ne des na trop ak ni ngeen di manipuler xaalis mel na euh, waaw loolu ñu ngi ciy dox xëy na comme loxo rek gone moom bu juddoo rek dox bi du gaaw waaye tey daa benn solution feeñ na si côté boobu xaalis bi ñu koy consommer ak liquide yi nga xam ne tey bu nit ñëwoon tey jaay la. nga war ko fay chèque xamul lu chèque du ko nangoo jël loolu problème la waaye nag gis na ni solution mu ngi feeñ ndax euh, banque bi ëpp luy jëflanteel muy CNCAS Touré wax na ñu ngi prévoiral sit boo xam dañu gën a jege pour ñu mën a gën a invité loolu. tey jii ñu gis ne ñaari prix xaw naa am ci ndax état bi 210 la fixé gis nañ ne 237 am na ci marché bi loolu ban jàngat bi ci waa état session euh, campagne bu bees bi jotagun prix fixe bi mais bu weesu 210 la ko fixé woon ñu gis ni Touba marché noor bi pëcc xoo gi ndax huilier bi ni ñu def lay def da jël xaalis ci banque bi di liggéey pour am recette ñu dañuy jël xaalis di ko liggéey su tegee marché am 14 francs teg ay frais mu taxaw 237,5 ñun suñu yokkee it war naa mën am fa mu yem mais pas ñu huilier ba dul mën am dara ci liggéey loolu nan ngeen ko fas yéene xeexee ba nga xam ne lu mu tënku rek comme booloo doon doole soxna maam xarit président Traciat kuréel la fi jiite si dëkk bi di kilifa ah ñun membre adopté yi li ma wax léegi rek buñ dee cent si acteur bi cent yi 90 yi bokk nañ adopté 10 yi des seen i doom ñu ngi si ak seen i kon buñ lëkkaloo doon am doole euh, wadd commerce euh, contrôle économique wax na si daaw ànd na ñoom liggéey liggéey bi mucc ay ren pare nan si pour sécuriser ko ba

ndax gis na ni production bi ñu am ñaari at yi gis nañ ko am kon loolu xëy na baaxu yàlla ak ndimbal ndimbal yàlla ak baaxu sëñ bi kon donc loolu dañu fiy sant yàlla suñu borom bu baax a baax pare nan nag si dugg si campagne ndax ñun xamul lu gerte moonu yóbbu fi ñu toll lu am gerte kon moom pare nan si suñuy pexe ak suñuy moyen ànd ko état bi si campagne bu mucc ayib waa ñun nag amul tranche dañ siy nekkal ndax fi mu ne nii ñuy wax ak yéen jiit nañ état depuis un mois ñu ngi liggéey ci gerte loolu itam bokk na si bu ñu gënee formalisé wu dana mën a dem ba xëy na di départ ak état waaye nag xam nga ki am yitteem di baykat bi xalaatu fen fu Touba andi fi marchandise am ñu itam ñu yor suñu xaalis gis ne ay gan mën na leen ko jàllale dañuy daal di commencé liggéey. tey jii la ak waaw jafe-jafe yi amoon de dafa mel ni séminaire bi solution feeñ na si ndax bi si jiitu mooy ADRA doon membre saignant yàgg dañ ko topp bay El Hadj Fall Mayoro joxe na si lu leer jàpp na ne xëy na ñu ngi si ay euh, négociation pour nangul na ko ndax comme fekk woon nañ ma bi ñuy négocier prix bi waaye boîte email bi mu ko envoyé dama ko yéex a gis moo tax présenté wu ma beneen bi des mooy surtout le problème bu mag mooy financement ndax ñu ñoo dajale suñu biir rek waa adop chiffre d'affaires bi ñu def ci un an et demi 60 milliards suñuy pexeek suñu xaalis yi ni suñu bàyyi bàyyeeloon ak ay volonté moo ko def kon nag jaadu na fi mu ne banque accompagné wu accompagné yeneen kuréel yi dafa leen lettre de garantie ñu mën di liggéey pour développer réew mi. sëñ bi euh, Mbacke maa ngi baax a baax am na lu bëri am wax loo xam ne lu am solo la parce que nee dafa am opérateur yoo xam dañuy yóbbu gerte boo xam ne ci téléphone rek.

waaye gis nañ ni fi mu gën a méttee mooy gerte gii dem dakaar port nga xam ni tey am na si partie boo xam ne moom yow client bi jaay sa gerte yaa def ndax boo demee rek ci par téléphone en même temps kooku qualité bi ñu ko présenté woon bi yóbbuloo ko loolu da am problème waaye li si ëpp gis nañ ni ñoom ñoo ni utiliser nax nu si dana yóbbu gerte sax ba mu ñu dàq ko te du am benn condition loolu nag ñu si ñaan état mi nga xam ni moom moo ñu jaboote ñëpp ay citoyen lañ ni ko ñëpp doonee te bëgg noo tegu ci aw yoon lu sécuriser nu adop ba tey gan gu ñëw am na sees mi ngi financé mi ngi def développement mën a jaar ci moom su jaarul ci moom autorité yi nga xam ñoom lañ séqal dëkk bi ku ci mën a jàpp nit teg ko ci aw yoon gis na ci yeneen dëkk ñëw di exploité gan boo dem ci àdduna ñii nii ñun directement comme si loolu comme su la monsieur le préfet mi ngi fi te dégg na leen rawante yaakaar naa bu ñu jógee danañ ci dox jéego bu am solo ndax bokk na ci li nu gën a tardeel muy siin Burkina Faso gi rek boo fa demee tey di ceccax wala xorom loo mën di jaay dangay jaar ci promoteur ba fa dëkk sinon doo mën a jaay doo mën a jënd kon jàpp naa ñu itam ci wàllu technologie ak démocratique ak fi Sénégal toll wér na ko ne pays africain yi ñu bari ñu ngi mel ni moom rafet naa njott comme xëy na organisé wu nan état dañoo jàmbale ci loolu ba mu mën a sécuriser wu. si xaar mooy Touba benn industrie nekk fi boo xam ne mooy créer emploi fi nguur waroon a nekk ñu nekkal nañ ko fa kon suñu demee ba nguur reconnaître mu tàllal loxo am projet boo xam ne da ko signé ak Rasiat protocole muy 20 mars jox na su ñuy liggéey Rasiat di presse huilier ñun ñu décortiquer gerte mu wér ni nawet bi dañ daawut liggéey te li nga xam ne daawuñu ko liggéey mooy ñàkk gis fu gerte gi jëm projet boobu mënu jox olof na def ni ëmb sa sangal ëmb sa kersa état yëg nañu gis nañu ñuy ñaan yàlla ñu suñu doxin ci dëkk bi mu ak soppeeku ci moom en tant que développement économique en tant que it si nit ku lu féete fenn nga féete ko fenn fi ñun daal pare nañ si tàllal loxo bépp état bu fi mën ne ndax ñu état rek moo la mën a àndal li bëgg mën ko mën a defal.